wax naa ko Assane ne ko yegal ma ko woo naa ko ne ko bégal ma Alboury. ndeysaan yow loo yow da nga baax ndax eh, dañ ne Lat-Joor loo bokk ak tubaab bi mun a yàgg kon yàgg bawul dara mun naa ne jamonoy tànku la kon loolu dafa longtemps parce que sëñ maama ñu bokk dëkk dara ñaawul xama nga xam sama mag ah ñu nekk ay morom lépp rafet wax dëgg di nuyu waa Grand Médine gi ma jugee xama boo gisee suñu teewaay fii suñu papa Youssou Ndour di ànd ak ñun fu ne heure bu xewlee ñun dañuy ñëw assisté taxaw ci sécurité bi taxaw ci yeneen domaine yoo xam ne du sécurité ñu ko ñaanal jàmm tawféex di ko ñaanal bépp artiste ndax xama rek dafa nekk artiste boo xam ne exemplaire la nekk ci musique bi euh, doon roi de mbalax xama di si bay affaire bu doy waar xama di sant tamit sama xarit Waly Seck vraiment ren boobu. alors boo kenn la mere. waaw moom faramaareen la ndax sekk yi dafa bëri te wuute sekk ndaanaan dafa am sekk siginaar am ah sekk jërëjërë am sekk faramaareen. mais mais Alboury Waly Seck fa la nekk sa xar jaw yow war nga xam ne Dakar nga sa yoonu. Alboury da ngay dóor. non Waly Seck maa ngi moom dañoo bokk ndey ak baay barki Maam Alboury da ngay door de ma bëggal ko sama bopp. barke Seydina Mohamed te dinaa ko ñëw seet si ah dëkk ak Ndiogou Mbaye sama xarit. Ndiogou Baye Baye Awa Mbaye. dëgg neexul. barke Sëñ Bamba. ñoom Bakary. waaw Bakary ñun ñoo bokk benn gétt. ñoo ko bokk. waaw te ku ci gétt gi naan ci meew mi nee naa la maye maye nag sàmm bi sañu ko sàmm bi xam ga la mu sañ maye soow. al Alboury nu ñëwaat ci làmb ji Alboury daan vidéo bi di daw ñu bëri jàpp ne Alboury dañ koo daan parce li mu wax boobu ak dan maa nokk ak xoolal sa mbët ndax mën nga ñu revenir si loolu waaw dëgg neexul te nee du mos a neex waaw balaa nga xam ne dëgg neexul ndeysaan ñu dëgg la ay cape wala godaas làmb ji ku ne seetaan na ko ah maa tiir ba dama ne ko woon man surtout bi ma ndeel a ngaan njaay laa te maam du xeex ak sax benn nit bu ko kenn musaana tooñ ndeysaan day bàyyi bañ mat fukk mu boole duma moo tax góor musu koo yeb ah bu musaana yàq ay waxam ndeysaan di nga ko defaraat làmb ja ne woon naa ko signature ba yow bis bu soobee yàlla bis bu ma leen a nuus dama lay noos fi ne damay noos yow soirée yi sunduur voilà nekk sama bopp. mais ma jaaxal mooy Alboury man dal dóor ba xàmmeetoo ndax xonk na wala weex na looloo ma jaaxal. non doo Alboury yow sa maam. daanu xeex benn daanu xeex ak ñaar nit yow nga xeex ak mu dóor la. non ku la xam nga dañoo toog jamonoy loolu du ku loolu nokkos la barke sëñ mais Alboury coon nee na da ngaa yow na ko sàcc parce que da nga bi moom moo ko moom. <laughs> waaw coon nee naa la ñun suñ kër c'est ñun suñ kër bool bu jugee ci waañ sax daanu génn contre temps dañ lay dañ lay sànni waañ bi bu ci bool daanoo sax kalangoogu loolu temps la barki sëñ Maama. mais Alboury wax dan maa noq loolu war àdduna Alboury succès boobu noonu nan la ko gisee. waaw ñu ngi koy ñu ngi koy dund ndax ñun succès juddu judduwuñ ci yaruwuñ ci màgguñ ci ah kon nañ koy gérer rek mel comme nañu meloon suñu xaritu démb ñooy suñu xaritu tey xam nga ñun fëkk yóbbuwuñu ndax ñun ay ay ay taalibe Cheikh lañu fëkk yóbbuwuñu ñun namuñu succès day xaar ba Sonko jël réew. mais nag li ma jaaxal man jaaxal waa Sénégal jaaxal waa adduna mooy li dama vierge dama vierge looloo jaaxle ñëpp dama vierge Alfoury nga teg ko fan xanaa sax dama puiso. loolu da nga koy laam-laame sama. dama puiso non mais waxal puiso. am na ñu may woo di ko laam-laame. ma ne leen Sénégal bëri na te te te kuy yoddu sa xët. am na benn gal ma. sa la woon te xamante ngeen. nee naa la may naa ñëpp média Alboury képp ku mos wala yow mos ko génnal nga wax déggu ma déggu ma li nga wax laa képp ku mos wala moom mu mos la génnal ci média bi man maa la ko permettre nga wax dama verser ba yàq xam nga bañ ma plaqué noonu ban la ban la bañ sama lamb bañ ma plaqué li tax tooguma loolu ca verse bala dama verse ba yàq Alboury lay xaar pour taxa jama non jotagul naa foog ma lekk xaalisu lamb